je dis et répète Pape Alé Niang sulaar la mandikat la mako ko wax lolou Sénégal yëpp wax nañ ko mm. maa ko wax lolou je le répète encore Ousmane Sonko daf ko sédd daf ko jox sa part du gâteau par rapport ak insulte ak saga yim mu doon def xalif généraux yi doon def ci bir sen entité bobu mom la Ousmane Sonko récompensé Mani, Ousmane Sonko il a trahi son serment un serment ça veut dire que mooy un contrat qui lie un leader avec son peuple tout contrat qui lie entre un peuple et son leader c'est un serment. xam nga ñoom benn benn arme Si ñu am. un leen lu objectif comme man dama leen waxoon kii le la wax respecté ko ki li la waxoon du deug xam nga lu ñuy def dañuy dem fay ay comédien ñoy genn sëñ Modou Bousso day fen ki day fet ñom pour ñom même un prophète bu ñëwoon génne lu Ousmane Sonko waxte lu deug prophète bi moy fen mais fen bobu ñu may ñuy wax sëñ Modou Bousso day fen fen bobu ci seen bàyyi Ousmane Sonko bi la wala Ousmane Sonko li mu wax dëggal lu deug wax lu deug moy fen ce n'est pas docteur sëñ Modou Bousso mais c'est plutôt seen bàyyi bi fi diggé won na def nagam une fois arrivé il a fait le contraire donc je pense pas pas Alé Niang Euh, gars yi xam nga nag dafa am euh, tey du ma nuyoo asalaamaaleykum tey du ma nuyoo dafa am ñoo xam ne mérito wuñ journal mais édition spéciale la mérito ku ci mel ne Modou Bousso Dieng mi dafa mérito ñu defal ko édition spéciale moom tey du ma ko defal journal ndax journal flash la damay ñëw jaar jàll mais dama bëgg a taxaw ci yow Modou Bousso Dieng il faut que moo wax la sa bopp waxaat la sa bopp waxaat la sa bopp pour beneen yoon booy génnaatee nga mën a xam sa bopp Modou Bousso jang dañ ñoo dajale ñun ñepp nga saga ñu bay lolu manque de respect Modou Bousso magum jëm nga yor nga ay doom yor nga ay sët leer na mané magum jëm nga ne sax nga ay bejaaw so xolé ba ay xalé yu ndaw di la de respect ci internet bi yow ya ko tek sa bop respectel sa bop parce que man bëgguma laa dépasser suma ma mané la yow tamit sa bay day fenn mais duma ko def du ma ko def parce que dama lay jox respect boobu noonu xam naa ne nag respecté woo sa bopp moo tax nga jàkkaarloo ñun di ñu saaga baay et pourtant ñun ay xale lañ ñun ñoo waroon a njëkkee loolu nga dem di ñu recadrer mais yow magum jëm mu toll ne yow ami doom ami sët di taxaw di saaga ay xale ndaw naa leen sa baay yow Ousmane ko suñu baay la Ousmane ko suñu sëriñ la lu tax nga ñuy saaga baay lu tax nga ñuy saaga sëriñ Modou Bousso Dieng mais suñu neexoon ñun la yow tamit sa baay day fen mais duñ ko def. <laughs> au moins ñu tané lako ko yow yaa yow fen nga ci sa bir émission parce que nee nga Ousmane Sonko bu nit waxé dara ci mom day yabal ay xal ay xalé yu nekk ci internet bi fay leen ñu diko tontul yow yow lool boko ko da ngay fen pourtant bu ñu neexoon ñu ne da ngay fen mais defuñu ko ba légui ni <laughs> ba légui ñu ngi continuer dila jox sa respect mais yow respecté woo sa bopp parce que nag magum jëmm bu respecté boppam booy wax waxal rek mais looy saaga day waxee tuddee ay ndi naa leen seen baay bu dul dara président Ousmane Sonko am na ay doom doomam yooyu ngay saaga seen baay même bu nekkul suñu baay te mooy suñu baay sax nag même bu nekkul woon suñu baay président Ousmane Sonko am ay doom yu mu yu mu jur si bo si géñoog boppam mais lu tax nga naan leen seen baay day fen parce que ñooñu xale yooyu defuñu la dara nga leen di saaga baay. xale yooyu nag duñ génn di la tontu mais ñun ñoo lay tontu mais ci biir tontu yi lay tontu yëpp duñ la saaga ñun rek ñoo saaga baay da nga ne ñun suñu baay Ousmane Sonko moom mooy fen mais ñun duñ la wax yow tamit sa baay day fen ñun duñ la ko wax parce que ñun dañ ñoo yar ñun duñu tooñ mais nag ku ñu tooñ ñu defanta ak ak yow lenn daal laa xam ne maa ngi koy digal mooy sa yaram bi nooy na nepp lax na tamit ni ngay waxee xaw naa jigéene gën koo dëgëral tuuti parce que nag ñun góor dëgg mooy opposé wu ak ñun yaa gis nga gis nga bi ñu nekkee ci opposition bi niñ ko doon taxawaay gis nga niñ ko doon safalee gis nga niñ ko doon tàngalee ba mu tàng kon pour nga opposé wu ak ñun il faut nga dëgër mais je pense que eh, c'est déedéet da ngay def yëfu góor ngay wax waxu góor bu sa jàng man xaw ma foo bokk xaw ma ku sa ki kilifa xaw ma bar këru diine nga bokk mais nag dama la bëgg a xam ne gënoo ñu ndey gënoo ñu bàyyi. gënoo ñu juddu gënoo ñu aw askan sa maam gënul suñu maan sa baay gënul suñu baay ba ñu saaga baay duñu fay nag ñu neexoon ñu ne la sa baay ñu dàq fen suñu baay mais duñ ko def te te émission bi mënoon nga fee dégg ne mais du ma ko def parce que nag ñun dinañ respecté ñi ñuy seetaan au moins mais nag mag bu amee sutura moo ko may boppam nan ngay jàkkaarloo ay xale yu ndaw di leen saaga baay yow yaay kan man lu ma la waxoon rek. li may waxoon yéen ñi opposé wu ak président Ousmane Sonko yëpp bu leen neexee ngeen critiquer def lu leen neex mais kàddu goo leen di yëkkati di ko jëmee ci moom xool leen ko ba xam bu jëmaatee ci yéen dina leen neex wala du leen neex ku ko fi saaga mën nañoo fay mais duñ fayu mais nag ku ko xoree ñu xore la ku ko gajj ñu gaj la boo leen di wax wax leen rek critiquer leen nii positivement comme ça mais saaga ku ko fi def ñun duñ ñu saaga ñun jàngaluñu ay saaga mais ku saaga. ah loo dégg yaa teg sa bopp parce que nag dofoo leen jëne jàpp leen bay nekk ci réew mi di saagawaate nekk leen ay nit ay magum jëmu ngeen ñàkk ngeen fayda trop nekk si internet bi di saagawaate naan diw bu de seen baay moo dàqal lii seen baay moo dàqalaa yow la nga nekkee Touba dañ koo wax ah pour yow da xamal luñ la dara ñu ngeeg say dossier mais rek leel bu fi saagawaat kenn dégg boo fi waxaate Ousmane Sonko day fen ñu ne la yow tamit dangay fen sa baay day fen mais duñ ko def mën nañ koo def mais duñ ko def am nañ réewane gu dool ne gi de gi nga am yow parce que comme mag nga mag mag mu réew am na ay xale yu réew yu nekk ci internet bi mais duñ la toog boo jàkkaarloog ay xale yu ndaw naan leen seen baay daa mën a fen ñu neexee ñu ne la yow tamit sa baay day fen mais xale yi au moins dinañ la tane duñ la topp ci sa saaga yooyu mais dem dañ la koy wax pour beneen yoon boo ko defaatee dañuy fayu bis boo su ñu baay Ousmane Sonko dañuy fayu soo bañee ñu fayu nag na dakk na mujj bis ni tey saaga yi buñ ko déggati na dakk te boo jógee ci fii nga dem seeti sëñ Moustapha Mbacke seeti sëñ Abdoulahan Mbacke xam naan du ñàkk ne xam nga ko nga lu dem ci moom mu wutal la ay garabu góor a parce que góor day dëgër quoi mais yow sa wax ci xaw naa nooy torop te sa loxo yi ni nga koy lëccax lëccaxee ni ma demal seeti sëñ Moustapha mu jox la ay bagage yoo xam ne lu jëm ci wàllu ngóora la boo demee tamit dina la ñaanal dina la listixaaral xolal la say mbir ba xam saga saagawaatee lan mo la ci wara a fekk yooyu yëpp suñ Moustapha boo dina ko xoolal na bala nga duggaat ci ñun bi moy dernier bi moy sa dernier sens bis bo fi génné waté di saga Ousmane Sonko dinañ fayu yon fayu wuñ dañ lay avertir té avertissement lañ lañ jëkko jox ba paré nak boko défaté man ñi ma si daan dama leen a respecté bëgguma nek fi di saga parce que respecté naa leen ba xamé wuñ ma ay saaga mais nak bu fi génnaatee saaga Ousmane Sonko ngir yàlla may leen ma ko damay fay man parce que daf ñëw saaga baay te ku la saaga baay am nga droit fayu moom moo ne suñu baay day fen suñu neexoon ñu ne ko yow tamit sa baay day fen defuñu ko pour l'instant sëñ Modou Goussé Dieng suñu neexoon yow ñu ne la si yow tamit sa baay day fen mais defuñu ko. mais lii c'est honte. may nañ la chance benn yoon bu mu ñaar bu ñaaraatee dañuy fayu. en tout cas loolu la amoon si lu ma lay wax te boo fi jigee ngay jënd Zirima di ko naan parce que tamit Zirima bi dina la tax nga xaw a dëgër tuuti sa yaram bi lu ma la wax sànq ni nga koy def di ko laccax laccax yi dafa nooy da ngay gën a dëgëral sa kàddu gi tuuti nga xaw dëgër tuuti nekk góor demoon nga jënd Zirima di ko naan am na ay bisaab am na di ditax am na jinjeer jinjeer bu saf bi am na bisaab am na buy am na di tax am na lépp li nga xamante ne ni dina la xaw a tax nga gën a dëgëre gën a góore da ngeen moytu xalé ci tiktok bi ak internet bi parce que ñooñu man sax dina fi nekk di am luma ma set mais ñooñu bo leen saga dañuy fay directement te ci digg bi lañuy jaar man nak duma lay avertir pour pour la première fois so fi wat Ousmane Sonko dina genn man tamit ma la sa bay day fenn te bu boba du mujj fenn parce que ya ko rew mi bay saagawaate rawat na ngay saga le premier ministre nak chef du gouvernement nga kay saga kon yow loo dégg yaa ko teg sa bopp mais avant tout bu mu ñaar bu ñaaree dañuy fayu voilà foofu laa yem nag pour l'instant pour l'instant en attendant yow yaa tax ba tey defuma journal tey yow yaa tax defuma journal tey li ma yoroon si ay xibaar yëpp ma ne lépp laay teg ne jàkkaaloo ak yow avertir la parce que yow mënuma la def ci ab journal nii benn flash bu ndaw jàll dama lay wax dama lay avertir balaa ñu ciy egg boo saagawaatee dañuy fayu na ma ñëpp jël témoin nag wasalaam. joxe elas man dama len ni yene ngeen don opposition mais opposition bu saf te ngeen wut ay góor tamit <laughs> te ngeen bari góor jigen de <laughs> lol tam loolu la yakal la ku xol sen soufu tubéy dag dag be ci gëna bari de te gën bari bëri jigen dag <laughs> te góor moy jité révolution góor moy jité opposition gis son ko nu mu dëgëree fit ni taw waaw gàtt sa gàtt ni gaa yi eh, oh, la opposition da ngay degré fit les gars révolution la révolution gars yi génn waaw briquet almet pneu essence taal briquet almet pneu essence taal briquet almet nga gis soldat yi génn vum vum vum briquet mais yéen ay góor jigéen da ngeen koo bëri la de kuy wax ku wax nga xeeb ko da ngeen di melastiku opposition nag seen melastiku boobu na ngeen ko bàyyi loolu c'est c'est pour le pouvoir opposition doo melastiku opposition da ngay yëy kaan di yuux <laughs> yëy kaan di saram <laughs> ñu naan la nga doon waa gën leen xeex leen combat bombardement mais tànk yéen a ngi màcc di Dakar di lamsal di biiñ <laughs> doole fi jëlee kenn <laughs> foog ngeen defarwaat foog ngeen doon ay góor yéen da ngeen di góor jigéen xam naa ne lu ngeen yàgg ci pouvoir moo leen def góor jigéen da ngeen góor jigéen trop il faut muy dëgër na ngeen <laughs> du daanu we que na yatu na yatu am opposant bu fi taxaw pour la mort et pour la prison nous déclarons à partir de demain une révolution sanglante oh briquet Albert gars commencé que molotov briquet Albert que ça, briquet Albert loolu rek ma fi fii kii mais sinon di ngeen ko lamsal yi ngeen fi nekkee opposition salon di dugal ka dajale toog ci média yi di dugal yooyu ku nekk nag non wécc wécc non boobu moom fi jëlee kenn. ñi jël nguur gi gars yi ci guerre lañ jóge de boo leen yaakaaree seen yëfu góor jigéen ñi ñoo leen di daane mënul nekk di gars yi ay guerre kat lañ de waa Pastef yi parti seen parti bi lañ dissoudre woon ñi fi toog tey dañoo dissoudre woon seen parti ñi fi toog tey quatre vingt nit lañ rey ci ñoom. ñi fi toog tey gars yi quatre vingt dix pour cent ay JLS lañ quatre vingt dix pour cent ay ca kaso ba lañ jógee donc gis nga ñooñu ay opposition mélastiku ak opposition lamsal ak biiñ opposition toog ci média di duur ak a ak toog sab salon ne mbàpp mel ni caga di boo xam say xuur non non ñoo ñoo moom mu ay ñi ay sadik lañ ay sadik ay sadik ay ñi ay cocktail molotov lañ formé ci ay cocktail molotov kaso cocktail molotov briquet almet fatal musa Fall ñuy encaissé gis ngeen ñii boo leen yaakaaree opposition salon du la ko dajale ak média mooy jëlee fi ñii ñii dañoo wowle de seen leader bi daa wowle président ba wowle ay partisans yi wowle ay guerre kat lañ ci guerre lañ jógee def nañ quatorze dix-huit def nañ trente neuf quarante cinq ñii ñu leen fi jóge du du kii de da ngay guerre ni ñoom wax naa leen ko nag ni ngeen tàmbalee nii góor jigéen bëri ci ngeen di màcc di màcc tuñ ak a lamsal biiñ mel la ñuy màcc daqaar wala ñuy màcc benqal ngeen di saf góor jigéen da ngeen koy tegee nële futteeku ba sat nag entraîné ba ceenee yokku fit même bu ko laajee tox leen ay boono yokku fit wala tox cigarette yokku fit tuuti taxaw wala ngeen dóor ñaari whisky seen bët yi xonk ngeen taxaw ngeen jóge ci muus doon gaynde lool kese moo fi jëlee ñii parce que ñii ñii dañoo wóor la de. billaay boo leen yaakaaree mun ngeen fi jëlee ñii ci ay waxi kese nii ay kàcc kàccaaral ak yooyu non non non non ñii demuñu de non ñii ñii loolu jëlee wu leen fi de. jus Rima yéen Sénégal entreprise bi Moy defar jus 100 naturel jus Rima tout doux un délicieux mélange de jus locaux avec des ingrédients frais et savoureux Les di 100 naturel 100 naturel boobu nag la ñu bëgg préserver ndax suñu yaram Les lu naturel Moi ci jus Rima 100 naturel gingembre ti gingembre ba amna ananas Amna citron ak ndox donc 100 carasolbe. d'achati. 100 carasolbe. cent bu du taxaw ndax am na meew ak ndox dong nga cay dem jus de tamarin rima ah jus de di tax ba ah jus buy ba fépp fu ñu ko yóbbu jude de buy ba du des ah 100% naturel Ouais, Jurima bisab bisab nana lenchadef. lañ naturel 100% naturel bisab blanc Andendok ananas Lip naturel Jurima 100% naturel suñu numéro fixe 33 845 13 13 wala 77 186 64 64 wala 70 607 10 10 wala nga de nous mail nous livrer en quantité wala nga dugg nous site www.jurima.com mail jurima naturel gmail.com fas gi waaw fas gi de day loo xam ne ñu ngi ko jëlee woon di fasug néew di ko di jàngoro ak néew kàttan sëñ fas jox fas nag day gàllaaj goo xam ne gàllaaj gàllaaju cosaan la mën mm-hmm. jana fa jana day gàllaaj gu yéeme fas gi nag sunu maam Cheikh Cyril Mokhtar moo ko daan joxe dafa bokk ci kaggu yi nga xam ne dafa jóge ci sëñ sëñ baara sëñ sëñ Cyril Mokhtar nag moo ko daan joxe waaye day fasu goo xam ne fasu néew kattan la mboolem koo xam ne am nga jàngoro néew kattan ndax sëñ Tuubaa kat dafa wax ni dañoo daganal ci ki nga xam ne dafay jàngale la muy jàngale mu jaar ca yax ba géej naa ci Cheikh Mamadou Lamine Baara fas gii waxtu ko nit takkee mboolem jafe-jafe ci néew kattan bu mu amoon moo xam day sëy di gaaw di yegg ba awram di dellu waaye waxtu wu ko takkee rek ba keroog muy faatu moom dana tàqali ko néew kàttan doon ci gën képp koy toj day fas la goo xam ne nag ñaare ba léeg-léeg dañ koy buñ ko joxee nit muy joteeg soxnaam dañuy sartante sax bu tëwee yegg ngir mu tekk ko day fasu néew kàttan gu yéeme yéeme yéeme mm-hmm. waxtu woo ko takkee rek daanaka da nga tek soxna ci ba fo bu ko yegg rek da nga fa yegg day galaj go xamne da ngay tak léegi gis léegi day fas nak fas gu yeme te te bëri ay njëriñ waaw ñaareel waxtu woko takke rek mën nga ci jotek sa soxna waaw khatim bi nak moo fas gi ñoy and waaw ñaareel ba nak duñ ko bëgg di wone ndax day lo xamne waye dal kep ko xamne am nga jafé jafé ñew katan rek waxtu wo takke fas gi rek suñu borom dana la takaliko ko euh, jangoro jojja tak léegi gis léegi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 jokkoo leen ak Serigne Abdou Aziz